jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek dañu koy topp ci site internet bi di Bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek wàllum justice foofa ca haute cour de justice bu fekkee ne rek kii di Macky Sall dañu ko jugé nak ci kanamu juridiction bi dina nekk ji bu fekkee ne rek parti Pastef daal dina gagné élection législative yi lii di assemblée nationale nag dinañu fa voté rek ab mise en place boo xamante ni rek dafa ñeel boobule haute cour de justice bi nga xamante ni rek dañuy tàmm nag di fa gis ñu fay jugé ay ministre ak ay président de la république annonce bu nu mel nag kii di El Hadj Malick Ndiaye nekk responsable ci parti bi di Pastef les patriotes moom moo ko daal di rek moom moo fi nekkoon ancien président de la république di Macky Sall mel na ni rek moom moo représenté nag wala moom moo nekk représentant principal ñi nga xamante ni rek daal dinañ leen cay eh, xaarandi nag maanaam daal dinañ leen cay ciblé ci boobu les menaces moom ak ay eh, am mu nekk nag mbir moo xamante ni rek lañ leen di toppee mooy njuuj njaaj ba noppi daal di détourné nekk ay koppar yoo xamante ni rek moomeelu askan wi la ba noppi nag daal di feesal li nga xamante ni rek moom mooy seeni compte public daal di cay amal ab maquillage mbir mu nu mel nag depuis indépendance ba nëga ni bu ñu defee pàttali comme ni ko l'observateur daal di xamale foofa ca haute cour de la justice nag ñaari auto personnalité képp rek lañ ci jugé ko ci njëkk nag di Mamadou Dia mi nekkoon ancien président du conseil ci nguuruk Léopold Sédar Senghor ginnaaw bu ñu ko daanee fukki ati kaso ak ñaar yoo xamante ne rek lañ ko doon toppee mooy jéem a def ab coup d'état ci atum 1962 kaneen ka ca topp di Idrissa Seck mi nekkoon ancien premier ministre ci nguuruk Abdoulaye mi nga xamante ne rek jotoon na bénéficié wu nag ci yooyu les bërëb ci mbiru sànce yi nga xamante ne rek lancé woon nañu ko ci atum 2004 bu fekkee ni rek kii di Macky Sall moom ci jëmi boppam rek dinañu ko jébbal wala sax dina présenté wu ci wetu cour de justice dina nekk ñetteelu haute personnalité ci yooyu de liste waaye ki nga xamante ne rek jamono ji moom la fi Bassirou Diomaye Diakhar fay daal di wutu nag mënuguñu ko jugé bu ñu sukkandikoo ci constitution bi lu dul nag dañoo daal di sukkandiku rek ci haute trahison greffe yi nga xamante ne rek daal di nañ ko ciy tudd mu nekk mbir moo xamante ne rek ci ñeneen ñoo xamante ne rek dañoo laalee ci lee accusation du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar ci la ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar